الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهدني لي السلام عليكم ورحمة الله mbokk yu jël si ci 2455 di sant yàlla bu baax nag ci xewal gi nga xam ne xewale na ko jullit yi muy ngëm yàlla gi di jéem a lu ci diine ji su ko defee tomb yi ñu doon waxtaane rek boole ko ak leeral yi ak laaj yi tontu yi eh, aha kay yàlla yàlla mooy def natt bu neex def natt bu naqari te saa yoo xëyee di ko gis fitna yi doon wax noppeegun ci ndax yëpp ci bari noo koy dund xeeti nit yi nga xam ni tamit ñi ngi woote ci turu lislaam te fekk fi ñu jëmale nit ñi du fu baax alislaam waxal ko yëpp yëpp ci fitna yi lay bokk te ku jàngul wala bokk ñu bari duñ xàmmee ñi war a déglu di jëfe seeni wax ndax njub ga ca nekk bu jaw jamono tolloo foofu nag eh, yow yàlla jox la nga am kilifa comme Sénégal ni mu baaxu nga xam ne jullit yëpp quatre vingt pour cent yëpp yëpp dañoo am fu ñuy askanle seen bopp ci benn tarixa waaye ma maal asaf la cay doy mooy la tarixa ba digle nga boo delloo ci téere yi génn xool ci nit ñi dañoo bokkul yoon wu ñu jaar te ñi ngi koy gën a sori rek loolu daal moom moo ci metti ñenn ñi xam nañ ni jàdd nañu waaye ba léegi mënu ñoo dëpp ñenn ñi ñoom xamuñu ci dara ñoom fu mbooloo mi jëm rek yàlla bu fekk sax eh, ñi ñu def ay sëriñ ñooña ñoo leen sànq loolu day am léeg-léeg am na ci diina ji ci ñi dul ñuy dund tariixa am la ca seen manhaj bañ yor mooy leen sànq ci biir tariixa bi am na ci ñoo xam ne dañoo teg fële ndigali tariixa ba ak ay sartam yor seen yoonu bopp ba noppi askanel seen bopp ci biir tariixa bi moo tax fi jamono toll nii ku ci dul xalaat <coughs> yow féex nga yaa ngi ci jàmm waaye yaa ngi ci musiba waaw tom bi xoolal fitna yi euh, borom bi subhaanahu taala moom alal ju bari fitna doom yu bari fitna la waaye xam nga tamit yeneen yëpp nga xam ne noo ngi koy dund ci mujj jamono moom it mooy fitan yii nit ñi gën a ragal sax foofu ndax ñu bari jàpp nañ ne waaw même alal bu lee fitna ak ak njaboot nañ ma ko joxe rek jàpp ngay diñ ci mën a génn a ah, aw yiw la waaye na la ndekete kon alxayr day doon aw yiw acharul doon aw yiw loolu la mbokk mi doon laaj waaw yàlla moo ni wa nabluwakum wala boog ma indi ba wa nabluwakum bi charri wal xayri fitna fitnatan yaani defe naa mi ngi ma ngi ko ba ma xil ma amwaalukum wa awlaadukum fitnatun waxaat boobu ma wax léegi wa nabluwakum bi charri wal xayri fitnatan kon fitna day nekk ci alxayri fitna day nekk ci achar lu nag jàppale ni fitna bi nekk ci achar rek moom moom moo dangereux waaye bi nga xam ne alxayri mooy aw yiw moom dangereux lu mel ni alal ak a ñaata nit ñoo ñooy dem sawara bu dee ci jàngalem sariya ni ñu koy waxee te la leen fa dugal moom mooy alal ñaata ak a bari ah, waa koo xëy lim yor nii lépp nam ko amee dafa xaraam mbokk yi loolu mbiram doy na waar mu bari lool nag li yor bari trop waaye ndey ja dafa xaram waaw nam ko amee nga bàyyi ko fi samp ci kër ah, ay nit doon na ko moom daal mi ngi noonu rek mi ngi noonu rek waaw alal liggéey ci loo xam ni ah, dañ fay mooy yàlla nga di ko jëfandikoo jóge fi mu continuer ñu doon ko muy liggéey loo xam ni day tax nit ñi mooy yàlla rek kon kay alal kay moom it musiba la ci wàllu gu mel noonu bu borom bi wax zuyina linnaasi xubbu saxawaatin min annisaai walbanina walxanaatira almuxantarati min aldahabi walfiddati walxayli almusawamati walancaami walxars ma ngi ca imran yàlla mi ngi melal fitna yi nga xam ni moom la ci alxuraan boo demee ci saay xay di ci fekk mooy ay ay hadis yuy wane salaam la waxoon ci hadisu Amar ibnul Awf al ansaari ni ko wallahi mal faqru axsha alaykum walakin axsha an tubshata alaykum dunya kama bushitat ala man xablakum bu ko defee fa fa tanaafasuuha kama tanaafasuuha waaye wa tuhlikukum kama ahlakat hum wante bi ni man day li tiit yéen sax day wallahi euh, du ak ñàkk maanaam ngeen ñàkk daal loolu daal taxul ma tiit ndax xam nañ bu ñu ñàkkeet ñàkk ga fam leen di yóbbu moo gën fuuf fi leen adduna bii nga xam ne dañ koo bëgg a am bam doyal ko sëkk di yóbbu moo tax mun leen wallaahi li ma gën a ragal ci yéen sax lu lu ak ñàkk leen di gaar kenn yi waaye man li may ragal ci ñu jox leen adduna yombalal leen ko ba mel ni ñi leen fi jiitu woon ni ñu barilee woon alal am àdduna ñu lekk di xëccoo àdduna boobu di ko xëccoo yéen bu boobaa bu àdduna ñëwee ak melokaanam ngeen di ko xëccoo ba ngeen alko ka comme ñoom ñi leen fi jiir doon ko xëccoo ni ñu alkool nee na loolu laay ragal ah, waaw kër jullit boo déggee wax ji doo jéem a génn sa bopp ci ñi xëccoo àdduna ah baax na waaye da ngay toog rek ah bari na ko jàpp lu bokk ci fekk fekk ci la bokk de waaw bul ko jiñ politiciens yi dong de ma nga ca commerçant ya ma nga ca sëriñ daara ya ma nga ca imam ya ma nga ca baykat ya ma nga ca ma nga ca ma nga ca takk der ya ma nga ñëpp ñëpp rawatina nag bu lee entre réew ak réew moo noonu yaa fale muy sarfu awsat lan moo ko taal xëccu àdduna da nga mos kaaral jëm cinquante mille yoo xam ni weer yu néew rey nañu ko fi ci ay nit junni junni junni téeméer ju leen nangam ñu blessé leen gaañ leen ñenn ñi fuuti lañu da ngay dund waaye amatuñu yenn seen sago kër yi tas ñu bari jirim lañu foofu ñenn ñi amatul boroom kër sooy waxee benn xale fa des ñëpp ñëpp faat nañu waaw mbokk yi loolu lépp lu koy indi mooy leen te waxal ni xanaa euh, ñu jox leen àdduna ngeen di ko xëccoo di ko xëccoo te gat ñi koy xëccoo dañuy teg fële mbirum àllaaxira mbirum ixlaas ñaari ñu ci dugg nañ ci xëccoo bi daal rek ngir bëgg am li li la tax a jóg noo jublu ay wote euh, léeg-léeg da ngay gis nit mu wax nga jàpp sa gémmiñ ndax jàppal nga ni kii xalaat na leneen lu ñëw di wax li muy wax yow jàppal nga loolu ndax euh, li nit ñi gis nañu lim fi nekkee wan mu ñëw tey ji di laaj poste subhanallah kon xëccu àdduna gi loo ngi ci kii du wax ngir bakkanam suñu yonent yàlla koy wax loo in huwa illaa wahyun yuuhaa danaa wax nit laa comme yéen rek mooy am naa ndey am naa bàyyi am ngeen ndey am ngeen baay da ngeen di xiif di mar nangam nangam walakin ah, waayente nag moom uxiya ilay nee na moom dañ koo waxyu saa boroom ñëw waxal boppam moom mooy kan ba noppi joxoñ lu ko ni kii mooy seen royukaay kii lum leen indil jël leen lu mu leen bàyyiloo bàyyi leen loolu kii kon euh, des na ci lun des na ci lun de kon fitna ci àdduna ba ci gën a tar inama am waalukum awlaadukum fitna dëggal la wax jooju kon euh, natt yaa ngi noonu bari lool bari torop nag falammaa nasuu maa maa dukiruu bihi fatahnaa alayhim abwaaba kulli shay'in hattaa izaa farihuu bimaa aatuu axadnaahum baxtatan fa izaa hum mublisuuna am na ñu ko jànge muballisuuna subhaanallah fa qutia daabira alqawmi allazina zalamuu gis nga ko walhamdulillahi rabbil alamin ñun yàlla musal ci jëflante googu yàlla jëflante ak alasina kafaro waaye bu la yàlla ubbilee yawit àdduna bul bokk si ñi nga xam ni dañoo loo àdduna dañ leen a fàtteloo yàlla yàlla na ku ko fàtte yàlla daan lay fàtteloo su bopp daan lay fàtte fàtteloo fa nasullaha fa ansahum anfusahum rek mbokk kon nun dañoo am euh, euh, téere boo xam ni bàyyiwul dara lu tuute ku si néew lu dul leeral na ko jamono ju ñëw fekk na mu leeral loola ñu ñi fi ne jamono yi yor ko di ko jàngale ak di ko firi ñoom ñëpp lañ fiy jóge ñeneen ñëwaat toogaat lu jamono indi ñu fekk ca lool loo xam ne ñun ñii ñu dégg lu ko ci woon ndax jamono ji indiwul lu mel noonu gis leeral yu bari alxuraan ñii tollu jamono jii ñu ngi ko gis yu mu leeral yoo xam ne ñafe ne dunduñu woon solution yooya dunduñu woon masaakil yooya waaye mooy téere boo xam ni nit ñi duñu ko weesu mukk ba àdduna tukki àdduna tukki kon xàjjaloo yu bari yi ci biir lislaam ba mat juróom ñaar fukk ak ñett doonte suñ saam daal wax ni léeg-léeg dinañ tudd lay ab lim dañ laa bëgg a wax ni la bari na rek waaye tëkkuñu ko ci xàdd bañ la wax ni la foofu lay toll alislaam nag moo xam firqa yi lu mu ci jublu woon nii dinañ dem ba nekk juróom-ñaar fukk ak ñett waaye li nga xam ci ay ay firqa ay ay kuréel ëpp na loolu loolu mooy wane ni ko ndekete bari gi sëñ Sàmbay waxoon ni bari na lim yu ñu wax te wax ni dina bari rek la walla bari na waaye ëpp na loolu foofu comme li ñenn ñi tënkee euh, euh, bàkkaar bi nga xam ni mooy euh, juróom-ñaari bàkkaar yooyu nga xam ni bay dugal nit sawara am ñu ko yóbbu téeméer juróom benn fukk am ñu ko yóbbu ñeenti téeméer am ñu ne bépp bàkkaar boo xam ni mën naa taabal nit sawara bokk ko ci boole ko ci alkabaayir ci bàkkaar yu mag yooyu nga daal di noppalu yow waaw mbokk mi nee na léeg waxtaan yi da koy diglu waaye lay jaaxle parce que lu xam fan lay mën a mujje ndax day mujj sax jaaxle ci nu muy fàggoo ak nu muy génne ba bëtam du gis lu xaraam ak nu muy nànkam ak it alxuraan est-ce que dagalul ci eh, nit ki ni war a nekk ci kaw suuf ak ni jamono yàqoo léegi moom daal Euh, loolu nag ku gëm yàlla di xalaat ba xam looy génn ci mbir mi moom mooy waxe nii bu dañ mukk rek di xam ni ab jaam nga bu yàlla jox xel waaye tàmbali ci soxal ngëm yàlla waaye ki ko indi woon doon ko jàngale moo la gënal na néewle alal lii nga xay am nga ko tey ji nga xay bis boo xëy tile ko mus yow musulaa dal daana ko dal ñetti fan te amoon na possibilité ngir loolu dañ waaye dafa tànn rek bàyyi noona doon fàqiir doon ku ñàkk mooy sayyidina alayhi salaatu wasalaam sori loolu tax waaye ñeneen ci senegal gii nga nekk rek lu nekk fi koo xam ne boo xëyee sa kër suba balaa midi nga lam fekk fa tëdd ñu ni sëriñ diw dey mi ngi nii buñ la waxee nam doon dunde danga naa ah déedéet est-ce que lii nit mën na koo dunde est-ce que est kon soriwul mbokk yi kon ndekete euh, asettu fi talabil awni min allahi al awni min allahi da nga koy gëm muy ndimbal mu ngi jóge ci sunu boroom euh, munuma ko wutal saa bopp munuma fegal saa bopp musiba waaye li yàlla wax ci may sabab lu luy euh, indi ndimbal ci man may sabab luy fekk musiba ci man naa ko def xam nga nit ki deful dara ndax yàllaa jox xel mi ak cër yi nga doon defee ba am li nga am waa ji ñëw ni ma de dama dégg ñu ni lañuy eh, joxe eh, ab dund ci dëkk bi taxaw ma fan la benn waaye ni ko ah kaay duggal mu dugg ci oto mu yóbbu ko mun ko mi ngi nii ñu jox ko waa ji indiwaat ko waa ji kay moo defal loolu yàlla moo defal lépp moo defal lépp li yàlla nag bu moom bu fekkee la ngay defi lu bon la moo la jox cër yi de waaye xamal ne la lii lu bon la lu xaraam la yow yaa nuur rek nuur nem kéwul xel yàlla du ko togg dara te waxan na ko ni ko wa isa saalaka ibadi anni fa inni xaribun ujibu daawata daahi isa daani falyastajibu lii wal yuminu bi laallahum yarshudun sama jaam ñi bu ñu leen bu ñu ma la laajee wax leen ni man soriwuma jege naa leen lool maa ngi diglu ko ma woo ma wuyu ko nañ ma woo ba daal leen di wuyu te ñu gëm ndax amaana ñu jub bu boobaa am naa wax lu jot na rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah alkarim silmilan ala stighaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu qad saxani li watani bi nafa ma anfani